Mamadou Diop Decroix na xuus bu baax a baax jëm ci wàllum mbay mi wàllum agriculture daal di wax ci paysans yi maanaam baykat yi bu baax a baax waaye tamit wax ci wàllum napp gi moom Mamadou Diop Decroix nee na ñi nga xam ne ñooy sàmmkat yi ak nappkat yi ñooñee maanaam dañoo nekk ci jafe-jafe amul kenn ku leen protéger moom Mamadou Diop Decroix wax na ci assemblée nationale ak xeex beeg xuloo beeg saagante yi xam ne moom lañ fa nemmeeku nee na loolee Camara kàddu yi Mamadou Diop Decroix la daan nay wax ci lu jëm ci wàllum ñetteelu candidature Macky Sall nee na Macky ci boppama maanaam mën naa wax wala mu def lu ko neex waaye tamit ne ko leer ne askan wi ñoom mën na ñoo fajal seen bopp wax na ci rapport Cour des comptes yi nee fii ci réew mi li nga xam ne moom lañ fi baaxoo di gis ñoo xam ne dañuy sàcc alalu réew mi te kenn du leen topp te nag loole ñépp ko xam ma kaay gi di réew mi ko di jeex xëy na rapport Cour des bi nga xam ne maanaam détournement beeg surfacturation yi ma nga mel ni tulleeg male ndax nag impunité bi moom dina jeex ci rapport yi loolee ab laaj la nag li nga xam ne moo am ba des daal sénégalais yi xam nañu ne fii mi bëri na ñoo xam ne dañu leen di épinglé waaye fa mi mujj mooy defa leen promotion te nag kenn du leen topp fa mbaxana doonee benn ñi nga xam ne ñooy waa grand place ñoom nee nañu rapport cour des comptes yi giraawal yeeg njublang yeeg sàcc yi nga xam ne nemmeeku nañ ko ci maanaam ministres yi wala daas maanaam kan mooy coupable kan moo def giraawal yi loolee la journal bi xëy di bu rëy moo am ci ministère bi nga xam ne moo fa xew ci fond covid 19 yi jéggi na dayo ndax ñi nga xam ne ñooy membre ministère bi ñoom ñoo njëkk a sédd seen bopp sédd seen bopp ba seen xol sedd te ñi nga xam ne ñoom lañ doon dimbalee xaalis boo xam ne ca ministère de la femme la bàyyi ko bëri na ñoo xam ne seen i tuura dafa dellu si waat ay yooni yooni yoona maanaam da ngay gis koo xam ne danañu ko bind bind ko fii bind ko fee jox ko ay aide ay yooni yooni yoona loole nag li nga xam ne moom la si gaay yi jublu maanaam mooy def ay njubla nga mooy vide li nga xam ne mooy keesu ministère bi yéen a kaay gi di fas papale ñu xëy fekk fa Mamadou Limine Thiam cour nga xam ne wane na ko ci xaalis bi ñu jagleen coronavirus bi maanaam mbir doy na waar genn xeetu doy waar goo xam ne scandale la fu ko waaye natt na ko te ñi nga xam ne tudd nañ leen si ñooñee dañoo war a wuy ci Cheikh Bamba Dièye ci biir journal bi nee na lii carnage financier dëggantaan la Macky Sall ci boppam ak premier ministre bi ñoo war a libéré ministre yi nga xam ne tudd nañ leen si su ko defee nag justice daal def lii nga yi loole nomination yi ñooñu dañu leen a war a yóbbu fa mbaxana doonee benn yéen kaay gi di réew mi quotidien Mamadou Lamine Thiam nee na Karim Wade candidat lay doon ci élection présidentielle 2024 enquête yéen na ko may ñu ñu yeggale ci lu jëm ci rapport cour des comptes ndax li nga xam ne moo ca am dafa doy waar ñi nga xam ne ñooy waa société civile bi ñoom nag nee ñu rapport cour des comptes yi maanaam mënuñu ko bàyyi mu naax saay comme li nga xam ne moo fi doon am loolee ñu ubbi si information judiciaire njiitu réew mi di président Macky Sall maanaam bi di amul choix ci scandale bi mbir mi dafa leera yéen kaay gi di Live Tribune nee na bu ñu waxante dëgg njuuj njaaj geek sàcc gi nga xam ne moo am ci rapport Cour des comptes lenn rek moo mën a am maanaam ñu remboursé xaalis bi wala ñu jël leen dugal leen ci kasu bi maanaam ñu goqi ko goqi xaalis bi wala ñu dugal leen ci kasu bi ndax mbir mi dafa jéggi dayoo xaalis boo xam ne maanaam askan wi ñoo ko moom ay nit taxaw fële maanaam bëgg na du ngaañ daal di koy lekk ñi nga xam ne nag ñoom lañ si leen war a remplacer te nag topp leen fa mbaxana doone benn yéen kaay gi di Le Quotidien yor xam ne moo jëm ci wàllum ceeb bi am na surfacturation boo xam ne ëpp na ñaari milliards Mansour Faye ana milliards yi yéen a kaay gi du l'Observateur docteur Mamadou Demba Ndoura mi nga xam ne jamono ji mooy secrétaire général bu SAMES kuréel gi ëmb ñi nga xam na ñu yëngatu ci wàllu wér gi yaram ke nee na nag jamono ji rapport yi nga xam ne gis nañu côté Cour des comptes génne ko mbir mi nag maanaam munuñu ko bàyyi mu sedd njiitu réew di président Macky Sall na ci wax moom docteur ma ngi mise en garde Macky yéen a kaay gi di Sud Quotidien bàyyi mbirum rapport Cour des yi nga xam ne ñooy ñàkk seen bakkan bitim réew wa ah, Horizon sans frontières ñoom Boubacar Seye nee na si atum 2022 bi lu toll ci fanweer ak ñeent cay sénégalais yu nekk si diaspora bi faatu nañu yéen kaay gi de la Réveil Quotidien nee na dossier gendarme bii di Didier Badji jamono ji maanaam dossier bi demul ci nga dikkul mbay laara point mort noonu la ko journal bi xëy binde yéen kaay gi di 24 heures ñu xëy fekk fa commissaire Boubacar Sadio daan nay bind Macky Sall ci lu jëm ci wàllum yëglekaay yéenekaay gi de Le Quotidien yor ñu xëy fekk fa Birame Souleye Diop nee na dafa dem ca diwaanu États-Unis daal di li nga xam ne mooy candidature am waaye nag na ko leer na askanu Sénégal ñooy jàmmarloo ak moom yéenekaay gi di bés bi nee na ñi nga xam ne ñooy waa APR jamono ji ñoo ngi campagne yéenekaay gi di Source A nee na Amy Ndiaye Gniby mi nga xam ne moom la ñu dóoroon ma nga woon hôpital génn na hôpital député la ñu